waa mbokki PUR ni am nañu mbette ci suñu ànd ak yéen waa PUR te ki leen fa taxawal nag di Cheikh Ahmed Tidiane Youm Habib Sy wax na lu bari ci moom waaye taxaw na fa taxaw boo xam ne taxaw bu ànd ak défendre PUR ci biir coalition bi waaye mën a défendre coalition bi ci biti ndax loolu mooy ànd kon tey dañ fay ñëw pour célébrer l'un des plus grands parti politiques du Sénégal muy le PUR di célébrer seen ñaar fukki at ak juróom muy vingt cinq ans loolu tuutiwul bëri na tey ñu nekk fii ci biir stade bi vingt cinq ans la ñu am wala lu yées vingt cinq ans ma bëgg a wax ak sénégalais yi tuuti ci li ma xam man ci PUR parce que sénégalais yi am na ci ñoo xam ne ba léegi soo waxee PUR dañ koy jaawale ak daayira naam président PUR kilifa diine la am ay daayira yoo xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko waaye le PUR et un parti politique et l'un des plus grands partis politiques du Sénégal sama ànd ak PUR ba bi ñuy commencé ànd am na lu tuuti lu ma xamoon ci PUR waaye ci ànd bi laa découvrir ndekete li Sénégal am ci li ñu war a gën a mën a ràññee ci ay intellectuels ay cadre les mieux formés au Sénégal et dans le monde ñi ngi ci biir PUR ci suñu ànd ak buur lañu jàng ni xam-xam ci politik xarañteef ci politique ak gis-gis ci politique boo koy wër ñëwal fekk ci waa PUR ci suñu ànd ak PUR lañu découvrir ni ñin li gëm ñun waa Pastef te ñu nekk ci Yewwi Askan yëpp gëm ko mooy ni politique lañ bëggoon gëmloo ni mooy politique mooy naxaate jëlloo moomul digeloo gëmul jël alalu réew mi ak manque loyauté ndekk na loolu du politique de gis nañ ko ci pur ba mu mat sëkk moo tax ma ne yéen waa pur laay waxal suñu ànd bii du caaxaan du neen suñu tànk seen tànk seen tànk suñu tànk da ngeen ne quand c'est pur je m'engage mais quand je m'engage c'est pur est-ce que dégg ngeen wax jooju quand c'est pur mais quand je m'engage c'est suñu ànd gi ni ñu nawee pur ci li mu doon te seeni couleur reflété ko plus ban couleur moo gën a pur que le vert et le blanc ces couleurs ces couleurs de notre religion mais ces couleurs de ma verte Casamance moo tax ni ma booleeg pur bëri na xam nga tey ku dugg ci te ci stade bi boo moytul nga ne est-ce que du Allez Casa moo fi nekk ndax couleur yi ñu bokk muy le vert et le blanc moo tax ma bëgg leen wax lenn lu gàtt Yewwi Askan Wi Cheikh Ahmed Tidiane Youm da koy wax tout le temps ne sëñ Moustapha Sy nee na la ngay ni def def leen ko sur le terrain moom li muy def mu ngi koy def fi mu ne moo tax ci zahir comme ci baatin xam nañ ni suñu ànd gi ñu ànd Yewwi Askan Wi ànd googu mooy soppi Sénégal ba faw est-ce que gëm ngeen loolu est-ce que gëm geen ni dans douze mois bu soobee yàlla dans douze mois bu soobee yàlla kay jiite Sénégal ak ñi muy àndal ñu jiite senegal est-ce que xam ngeen di génnul fii xam ngeen di génnul yeewi askan wi incha allah bu soobee yàlla moo xam sëñ Moustapha Sy lay tudd wala Ousmane Sonko wala Khalifa Sall wala Malick Gakou wala Déthié Fall wala Aïda Mbodj wala ku doon waaye dans douze mois ki ñuy toog ne ko monsieur le président génnul fii incha allah moo tax nag dinaa daaneel sama wax ci dànkaaf waat ki nga xam ne mooy Macky Sall xam naa dé dégg naa ni addunaam yépp moo ko jagleel xërëm ak xarga fuufa bu dee ay xërëmkat yu ñuy wëri ba enn ñoo ko gëmloo ni mun na toogaat fii au delà du 25 février 2025 ndax xam ne xërëmkat yooyu waxuñu ko dëgg de. bu dee ñi ko wër ci ay faucon di ko gëmloo ni mun na sukkandiku ci armée ak gendarmerie particulièrement ci gendarmerie ak police ak justice pour toogaat fii au delà du 25 février ndax nañ ko. Macky Sall li ma ko bëgg wax mooy ay mbiram dafa jeex tàkk bu déggul olof ma ko ci pulaar gasi bu déggul pulaar ma ko ci français c'est terminé bu déggul français ma wax ko ko ci joolaa bamban bu déggul joolaa ñox ko ci soose abanta bu jéggul soose ñox ko ko ci angale nag mooy game is over julli na ay rakkam ba pare na takk ay bagaasam te nag fi may daanele Macky sal yàgg naa tooñ ay nit ci réew mi 12 ans yi mu toog yépp 12 ans tooñ la ak lor jom jàmbur yi 12 ans yi mu toog yépp 12 ans jaay doole la ak essayer toroxal nit ñi waaye nag am na benn fee boo xam ne maa ngi koy wax Sénégal yëpp nañ ñu déglu lu am solo la la paix et la stabilité dans ce pays mooy suñu matière première nun moo jiitu pétrole moo jiitu gaz moo jiitu or moo jiitu zircon Macky Sall moo fi nekk président bu njëkk a créé ay milices ay milices ay Samba dugal leen ñuy jaxasoog police yor ay lance-grenade yor ay fetal di ko tiire ci sénégalais yi loolu kenn du ko nangu ci réew mi ñu ngi koy dànkaafu une dernière fois ne téye ay milisam ndax ku xool li fi daje xam ni bu doon créer ay milice rek yomb nañu lool tax ndaw ñi fi nekk ñépp dañoo nekk seen dikk doole entraîné nañu ba mat li ñu leen doyee koo ci joxoon gànnaay mu dem xeexi na tee ay milisam ndax li xew keroog ci corniche bi ay milisu Macky Sall yor fa ay grenades lacrymogènes ak ay fetal ba alkaati yi ñemewuñ leen jàpp ne faw ñu jël ma dugal ma ñoom seen fourgon blindé pour bañ ñooñu téere ñu ay fetal loolu gàcce Sénégal la te maa ngi dànkaafu Macky Sall ndax benn bis bu laalee benn ci leader yi fi nekk le peuple va le sortir du palais et va le traîner d'or comme Samuel Doe comme tous les dictateurs yi nga xam ne jaar nañ fi mbokki PUR rassemblement bi dal na xel waaye di doon bu mujje suñu rassemblement ndax daje yi ñuy daje dafa am solo message la bu ñuy lancé au monde entier que Macky Sall est politiquement et sociologiquement minorisé dans ce pays suñ fi toogoon ba deux heures du matin kenn du fi jóg dem yoonam waaye moom saa yu dajalee ay nitam balaa ñoom ñu jël kàddu nit ñi dem seen yoon parce que c'est des foules ak ñu ñuy fay ay 2000 francs ak ay 5000 francs ñun bokkuñoo ak ñoom ñoom bokkuñoo ñun moo tax nag loolu xam nañ ko dama ne kenn du ànd ak sëñ Moustapha si ñu koy fay pour mu ñëw wuyu si sëñ Moustapha Sy kenn du ànd ak Ousmane Sonko ñu koy fay pour mu ñëw wuyu si Ousmane Sonko xam nañ ni ay militant dëgg lañu am ute naag ñi ñuy transporter ñuy na ñuy fooy seen xel moo tax nag fi may daanele nii daje bi rafetee tey ci géejawaay ni mu rafetee woon keroog ci Kër Massar ni mu naroon rafetee keroog Mbàkke ñu tiit ba interdire ko wi askan wi dina jàpp date fan yii bëgguñu méga meeting de giga meeting la ñu bëgg giga meeting la bëgg ndax xam ngeen ni capacité bii pur am Pastef am ko taxawu am ko keneen ak keneen am ko amul fenn fu ñu mën a contenir fii ci Sénégal waaye dañoo bëgg rassemblement boo xam ne cent mille sénégalais nañ fa daje. ba Macky Sall xam ni xajuñu ci moom ba Macky Sall xam ni duñu moroomam ba Macky Sall xam ni jeexal na ci réew mi ba Macky Sall xam ni bis bu ñu jógee dox jëm pale dara mënu koo sauver du police du gendarmerie du armée je vous remercie asalaamaaleykum